conseil ministériel bi ñu am le woon euh, jëwriñ yu yees yi nag euh, jàpp nii faw ñu daal di wàccoog euh, fukk ak juróom-ñeent tëralin yu yees ngir l'examen bu certificat de fin d'études élémentaires ak concours d'entrée en sixième ñu daal di koy amal ci anam yi mu waree ren nag digitalisation maanaam xarala yu yees yi ñoo ci gën a fës. taxawal nañ ko pour CFEE ak BFEM c'est ca inscription ba ba ci publication résultat yi lépp dañ ko digitaliser la plateforme Anadolu. boobule coppite bu yees nag liñ ciy xaarandi bari na. la con. waaw constitution base de données numérisée loole day gën a gaawal traitement yi nga xam ne mooy données yi ak tamit indi wàllum leeraange waaye tam ci archivage électronique ci ay extraits de naissance ay registres ay relevé notes ak i ah, diplôme. ci bésu aljuma bi nag ci xayma ñi war a bokk ci examen bi nag toll nañ ci ñetti téeméeri junni ak lu teg lu ëpp genn wàll gi téeméer boo jël juróom fukk ak juróom benn bi nag ay jigéen lañ bu ñu xayma lim bu bindu ren nag ak bu daaw wi ren am na yokkute guñ ci daan ji nemmeeku l'examen yi dinañ ko daal di amal nag ci daanaka ñaari junniy centre candidat yi ñu am extrait de naissance wala ñu daal di koy bañ a am ñoom ñëpp nag dinañ daal di amal examen yi ñeenti fan képp daal di des ñu daal di ciy dem mu mel nii lépp pare na. ñi nga xam ne dañoo am euh, jafe-jafe gis-gis ba nga xam ne du ñu gis dara ñoom dañoo euh, euh, def li ñuy wax braille. ñi nga xam ne am nañ naam jafe-jafe gis-gis waaye dinañ gis tuuti. ñooñu dañoo yokk mbind épreuve yi. résultat yi sokkeekoo ci CFEE entrée en sixième bi nag ci benn bés bi lañ ko daal di joxee ñu daal di koy jaarale ci ay SMS. yëf yi nag mu mel ni yëpp pare na directeur yu examen yi ak concours moom nag muy daal di jagleel bataaxal waajur yi. d'accompagner leur candidat. waaw gunge candidat yi ci ñaari fan yi ngir rek moytu ay retard wala ay absence.